kër ni jaay senag am na huile am na AO kër ni jaay senag kër ni jaay senag am na qualité c'est garanti kër ni jaay senag nga lu tax ma tamu senak peinture bi gën Sénégal andu kat katex or ñu la tek satiné ñu peinture se kër ba mu nice jabot ya gi xap ti relax 120000 teint couleur bu né du rouge du tak garantie defal sa choice décorateur wala revendeur defal sa choice jëlal pinceau am nañ AO defal sa choice artiste peintre applicateur defal sa choice c'est bien plus que de la peinture Yo le réew mi tamu ci

waaw waaw waaw waxal waxal waaw waaw waaw waaw c'est bien plus que de la peinture kër ni jaay senak am na huile am na AO kër ni jaay senak kër ni jaay senak am na qualité c'est garanti kër ni jaay senak nga ni ma kër ni jaay senak

ci carte fixe mhm. moom laa teg pour première couche bi. c'est bien c'est bien. mbaa def nga enduit bi. yii gannaaw loolu na sa xel dal man du ma milli ñaari yoon. moom laa teg sa kaw boo duggee da nga koy fekk mu liis. et puis lii bul fàttali projet social Sénac la. voilà ñoom ñoo ñuy offrir peinture bi. Mhm. te nag sa grand bii nii ku xam sa choix la. parce que mhm. lépp la la andil. apparemment dafa mel ni école am nga fëlee quoi. waaw euh, Abou boo bëggee dégg-dëgg kii mooy daj dëpp bi.

du liggéey caaxaan liggéey bii dafa laaj nga wuti xam-xam dafa laaj nga jàng dafa laaj nga laajte te man ba mu tollee noonu dama dem laajte ko et puis mu ubbil ma bunt yi bu baax a baax sama gars sama gars mais yow sinon yow nañ la bàyyee nga nga dem nga nekk si liggéey bi ah, xoolaat booy fuñ toll si liggéey bi voilà voilà incha allah ah jërëjëf grand ok la prochaine incha après xam naa dinaa la woo ok c'est bien non mais kontaan naa ci yow nag sincèrement lay gis ngay waxtaan ak booy bi may naan mais kii est-ce Laurent la eh, lépp yow la non regretté ma effort yi ma daj ci yow lii leen nañ doon ñaan ah mais léegi moom vrai kilifa nga Laurent <laughs> mais nag ndongo daara laay mus a doon si wër non mais Laurent ah, léegi moom mokkal nga non mais mais sinon nag naka liggéey waaw waaw waaw ñu ngi si ñu ngi si mhm. gis nga depuis euh, projet rénovateur bi ma bon na directeur bi mhm. boobu ba léegi rek laa xëy rek sa xel dafa neex conseil ah, parce que 6 mois après il a demal sa bopp Laurent waaw mais grand donc tout le mérite revient mais nañu waxante deug olof Ndiaye nee ku ñame dañ la dé non tout le mérite revient ma ngi raison yëpp ma ngi fay dem di ko dëbb ngeen ne sérieux léegi damay taxaw naan gars yi eh, faites ça euh, voilà tu déplaces euh. <laughs> comme ni ma ko doon tegalee rek si sa mais li leen doon ñaan nag macha jarul sax gisee li leen doon ñaan ngay dem bay ñak jot ah merci mais nak dafa am lu ma bëgg a laaj ah Laurent foo foo toll ci soxla yu tam <laughs> Ah, no, no, no, no. ah boobu de noonu ak ah dégg nga sama frère jot na de isa ñor nga xom na yow daal teg nga ma ci peinture bi waaw yaa ngi may teg ci yoonu soxna mais loolu mooy sama wareef oh kale mon parrain oh là là Yeah boy Laurent naka mam, nice ya, mhm. eh, ya. def namu naa la trop maam léegi daal noppalik nga bu baax waaw waaw alhamdulilah léegi moom fan yi moom sant baax noonu la nag bu ñetti at ngay xalaat nga def mbaa añ nga door a ñëw yii tey moom añ moom gëj añ na gis nga rek at yi dañu gaaw trop sax maa ngi fàttali su premier jour bi nga tàmbalee liggéey si ñu fay la xaalis bu bari nga ñibbi si ngoon découragé nag tout simplement xaalis bi yëpp matériel nga ko jëndee yii maam yaa ngi wax lu garaaw a garaaw maam loolu du nga ko mës fàtte fàtte jamais moo ko fàtte moom maam maa ngi sant yàlla bi ma la gindee ba léegi mhm. euh, te gis naa ni yow tamit nag wax dëgg yàlla góor nga kilifa

mënatuma héberger célibataire xale yu jigéen ñi di dugg ak dem donte nag xam naa ni yow trois ans yi nga nga téye sa bopp. maam bu dugg ci loolu yow xam nga moom bu baax nga ma nekk ma ci yooyu man kenn nga ma mës a xamee kooku ça fait de cela trois ans gisuma ko su ma gisee nii sax xam ma ndax dina ma xamee. yow doo gëree nag. Ah, yow bu nga ah, xamee loolu doo dem seeti seeti <laughs> maam boo bëggee dëgg-dëgg daal ah. jóge naa ci loolu bu yàgg maa ci yeneen projet am naa yeneen solution sax ah yow da bëgg wax ne trois ans yi kon toogul woon bëgg solo labbe waaw يلا موها سيلا تيخيو شانجي غا دي فانتا دي كو تونكو سي خولو فانتا ليغي خيخاتول بلانتا سخ امو تونكو لو خيو داما كو تالاتول ريك كوزين ليغي يا واخ ما لان موتاخ تالاتوكو سوكر سي تم تميل سما ادونا مو دم سوكر سي خرم سي كانيكي لي بلاويتس شي ادونا sukar jang da nga jabeet da nga dara daluma gu aduna ci papa mo andak mom dem Laurent sans Fanta c'est impossible yow gor motax nga melni man ma ngi xalaat nan Fanta dafa feebar wala dara moko jot naka te yow gor motax nga melni yow beccu gu nar kam la koy dama ko nam ba léegi su may feeñu day wax ak ma da koy gis. Fanta. ma dem bëggeelu endo ngeen ngeen di yoxal leen te journée bi méttiwul di heure bi ku nekk ak ñu newoon di lu ne ngeen dugg mu ne gaaw leen doo gala lora ça va boy naka ça va yéen a ngi si jàmm ça va bi sant rek xam yéen a ngi pare nañ de presque instant ku ñu ci war a ok voilà sinon façade bi xoolaat nga ko waaw xoolaat naa ko pare na lépp pare na ko waaw sa bët soxor na noir ba pare tànnagul noir. tey sama gars léegi wuy nga sa tur yaa ngi mel ku jige baar nag xas sa fen. fii nii lañ doon génn après dem côté Nirvana yooyu boobu ñu ngi gën doon booy xam nga di dox. fii la yëpp doore loo ci xam oh fii la lépp doore sinon ma loo noo gisee kër yi

kër gi man ak sama jabar ñoko mom comme man nak mako def lool rénové ko donc man dina wut kuma ko raxasal bu mu set tax sama yaakaar do légui dima ko këli mo la déssé wa fais toi plaisir mais fanta la moo tax nga eppul mo da ko bari problème bëgg xex bëgg xuloo mën doré fan fanta la moo tax nga violente fanta mais man xamna naa li ma manqué xam nga moy lan gis nga ni nga violenté non ni nga may persécuté ni nga may non non non ba paré di ma sandi fu nek mais Fanta noonu laa la bëggee. déclaration d'amour ou de guerre parce que bama ci wona ma si fekk si. man bu guerre bu soxlawu ma de déclaration d'amour la ko soxla te dinaa la wax mbir Fanta tu es ma MDCC ma ministre déléguée chargée de mon cœur et de mon corps. Fanta est-ce que tu veux m'épouser. Hmm? waaw. yëfi tubaab la. waaw. barki Rasulullah. <laughs> non. Mais là fundëng comme bàgg bi ñëwagul dama lay takkal bii en attendant bàgg bi di ñëw xam nga sunu maam yi nañ ko def à l'époque mon cœur je t'aime kon sama gars yi yoonu ndaw a ngi noonu yoonu ndaw yombul dina bëri ay jafe-jafe bëri ay embûche ak ay rëkk-rëkk moo ñu soxla ñuy téy seen loxo di leen gindi buñ naree juum wala tamit di leen dëpp bu fekkee dañ nar a jël yoon bu leen di gaañ. liggéeykat buy door a door tamit soxla nga partenaire bu fiable buy téye sa loxo te nekk sa ginnaaw mu leer na ne même boo fakastaloo am na ku taxaw sa ginnaaw ngir tere laa suux loolu nag mooy senak loolu mooy suñu philosophie.